mise au point mooy leeral ndax dañoo bokk ak réew mi ñoo xam ni ñi dafa mel na loolu ivoirien ba doon wax je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps man nag ku gaaw a dégg laa ku gaaw a xam laa ku gaaw a gis li nga may joxoñ waaye nag faaw nga yàgg lool ci di ma ko di ma ko joxoñ ñaar yu safaanoo la Momar Diagne mii di wax ak yéen moom doomu aadama la nit rekk kon mu wax innama ana basharum mislukum nit rek laa comme yéen am xol di ko yége am xel di xalaat sama yaram di yëg ma am nag ay principe loolu jorut a wax koo gis ku ne am na principe golo yi sax am nañu principe waaye man samay principe man def cee bokk man duma ko yombal noonu la ma yàlla bindee bi ma juddoo ba léegi duma bokk ci ñi nga xam ni ñii dañuy daw walla ñuy deltu ginnaaw nu nit dikkee rek man ci loolu laa nekk réew mi nag xamuñu ku tooñ ku fayu lañu xam li nga xam ni moom la saxaabatul kiraam daj ki yàlla yónni woon ci ñun daj ko bi mu àndeek ñoom asaka ja mën naa am duma ko daj loola suñu borom sax dafa àgg ba ci àddu ci la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasmaunna min alladina utul kitaaba min qablikum wa min alladina ashraku azan kathiran wa in na dees na leen nattu ci seen alal ak ci seen jëmm yi da ngeen dégg ci ñi nga xam ne ñi ñoo jotooni téere lu jiitu yéen ak ñi nga xam ne ay bokkaalekat lañu dangeen ngeen ci ñoom ñaaw ñaawteef yu bari lor yu bari waaye nee na su ngeen mu muñee te ragal yàlla sax ci nee na loolu de ci jikko yi gën a kafe ci mbir yi gën a kawe la bokk man nag duma saxaaba bu yàlla booleekub yonent ñii ñu jàkkaar lool ci réew mii duñu nooni saxaaba yi ndax ñooñu lu bon bon sax amoon nañu tuuti loyauté ngor ak jom nga xam ni dangay waggar yow sa noon lu mu doon doon sab noon jamono it nag du benn xew-xew yi itamit du benn ñii ñu jàkkaar lool seen yoon nekkul ci bokk gi ñu am ak ñoom ci deret wala ñu am kook ñoom ci meen loolo jog gi nañu ca ñoom jog gi nañu ca bokk gi ñu bokk ak ñoom diine waxaalewuma ko pas-pas yu ñàkk solo yu deltu ginnaaw moom lañu jiital di mbaañaxe nit ñi man am naa mbokk ci fune ne laa am mbokk ci senegaal ci pas bu ne moo tax am na foo xam ni duma fa àgg nag am na foo xam ni duma fa àgg parce que damay sauvegarder li ma lislaam sante may maslaxa loolu nag mooy maslaxa mooy nit ki daal li feek diineem salfaañewul pas-pasam salfaañewul lislaam salfaañewul valeur yi ñu bokk salfaañewul réew mi ñu bokk man kooka damay mën a maslanteeg moom waaye nag mënuloo di nappaaje lislaam di salfaañe alxuraan di fowwee diine ji ba pare nga ne nit ñi nañ noppi ci yow nañ jàmbure ci yow nañu maandu ci yow dafa am ku ñuy wax Nathalie Yambo dafa wax wax bu am solo à comportement d'habit froissé réaction de fer à repasser ku dikk ci yow di la jaay jikkoy mbubb mu ñargaloo mooy mbubb mu ñu fóot te paasee guñ ko nee na réagiral na nga jëflanteeg moom jëflanteb feer feer bi ñuy paasee tàng jër nga jaarale ko ci kaw réew mi li fi xew mbokk yi juróom fukki atul lese ale booba benn télé fi rajo benn fi ne xëy na yeneen it amu fi woon loolu moo tax nit ñi mënuñu woon a saafara yi fi daan xew mënuñu ko saafara booba réseaux sociaux yi nekkuñu fi bu neexee nga wax lu la neex nit ñi amuñu fuñ la tontoo booba moyens yi dañoo limité looloo waral lii ñu nekk nii tey nit ñi yàgg ci lëndëm lool këruus lëndëm këruus ba nga xam ni yow tey boo taaloonu làmp ci seen wet di niit seeni bët di metti yàgg ci ay nax ba soo leen waxee dëgg seen yaakaar bëgg a tas loolu rekk a waral coow lu metti li léeg-léeg ñu ne ma waaw yow waxabit nga waaw waaw cent pour cent man bu ci kenn am xel yaar ak nattable su fekkee ne wahabit daal mooy fonk sunna di ko jéem a défendre sa kemt lay kattan bëgg lislaam doo toog di seetaan ñu koy jalgati bëgg sa réew ndax xubbul watan min al iman bëgg ndonoy maam yi ndax sàmm jikko yu rafet yi su dee loolu mooy waxabit maay premier waxabitu senegal waaye ay nit ñu dul waxabit tëgg fecc woy dof doflu fen sos mel na ñu tox yàmbaa wala ñu naan sàngara wala ñu fóon lu bon wala ñu mel na ku jinne sadd ngay waxi waxi dof su dee ñooñu la man duma ñooñu am na ku ma ne wéy yow da ngaa contre tariqa yi te tariqa yi weesuwul astaghfirullah laa ilaha illa allah allahuma salli ala sayidina muhammadin ma ne ko su loolu dong jarul sax mbooloo ndax ba ko yàlla di santaane ñetti yooyu astaghfiru rabbukum ak zikrullah ak salaatu ala nabi ba ko yàlla di santaane waxul def leen ko ci mbooloo waxul tànn le déedéet santaane la ci joxe kon jarul woon di sos mbooloo ñu àgg ba ci mbooloo mooma di rax rax boo xam ni yéen ñii di wax yéen a gën a xam ni rax na li ci baax léegi ci jamono jii li ci baax su feesoo salaatu ala nabi ak istighfaar ak boobu ngay wax li ci bon moo ëpp te xam ngeen ko ay fooki caaxaan man ku gëm yarub lislaam la ku gëm yarub baatin la waaye gëmuma na obscurantisme gëmuma jàpp ay nit dof loo leen def leen ay rabu àll ba ku leen tudd ñu ñu ñu ñu gemb di la saaga di la xas kon defaruñ leen ça veut dire defaruñ leen bu fekkoon dañ leen a defar defarub lislaam du ngeen tëb di saaga nit ñi parce que amu leen argument déedéet da ngeen am tontu ci argument ci lislaam nit ñi sax duñ leen tudd parce que su boobaa comportement islam bi lañ dul gis ci yéen lu ñuy critiquer ba muy jur ab béjoo wala werante lii ngeen di seen ci réew mi mbokk yi c'est l'image de tout un système basé sur le mensonge ëpp na juróom fukki at ay nit di fen di naxte di wax ay caaxaan ay xuraafaat yu teguwul fenn ba pare ne kenn du leen tudd koo ci gis mu mere la parce que yaakaar ji mu yaakaaroon moom la jàpp ne moom ngay waaj a tas yow bu ngeen gisee mbokk yi xar boo ko rendee deret ji dali cay boo ko téyewul noonu muy def da ngay gëm ne musu musoo gis xar def ko bi muy dund lu dem ci toll ci sukkuraat agoni mooy faral di def réaction yu mel nii ils sont aux abois fen moom mën na yàgg lool waaye nag mënta sax dàkk diggante yar nit ak endoctriner ko lu sore ngi ci biir ci diggante bi jàpp nit yar ko def ci moom ay jikko ngor jom sutura teggin xorma kersa jàpp nit jàngal ko ba mu yeewu xàmmee diggante boroomam ak moroomam ak jëmmam loolu mooy yar waaye jàpp nit dofloo ko raxas boppam bi dugal ci lu kenn xamul nu mu mën a mel-mel nii ku endoctriner nit dof ngay am wala rabu àll boo yaree nit ay jikko lay am ay vertu lay am su boobaa day gis religion diine macro lay gis du gis micro waaye boo ko endoctriné micro rek lay gis luy gravité autour de sa personne de son choix de ses idéaux de ses opinions loolu rek lu dul loolu bokk ca day mel na fas wu ñu takkal ay fegu du gis feneen fu dul diggu tali bi bi kullu xisbin bima ladayhim farihun xam ngeen du ngeen fàtte at yee ca ginnaaw yooyu ñu daan wax ay secte ci États-Unis ak ci Europe secte tueuse lañ leen tuddee woon Jody Mambro Jim Jones Charles Manson David Koresh Michael Travers ñooñu def nañ fi dégâts yoo xam ni kenn xamul nu mu toll parce que dañoo dikk di gëmloo nit ñi yoonu cretien te dëgg dëggudu woon loola beneen yoon la woon am na ci ñoo xam ne dañoo pikiir seen bopp poson dee am ci ñoo xam ne dañoo euh, taal seen bopp safara dee am lu ne nag def nañ ko ci nag yu ñaaw yu bon yu ne woon ci biir parce que da du loon pas-pas bu jëm ci yàlla yéen ku leen jureen yërëm leen ndax nag da ngay àgg ci nit ki foo xam ni daanaka ñi nga ñàkkee yaakaar ci iblis noonu nga yaakaar ñàkkee yaakaar ci ñoom parce que comportement bi ñuy am daf lay metti metti wu ma sama jëmmu bopp parce que nag borom dëj bi mën naa jooy dëjëm moom waaye dama leen a yërëm mbokk yi réew ma ngi nii goo xam ne bi dañoo yàgg a nax nit ñi nax yu metti gëmloo leen yoo xam ni yu limité réew moo xam ne mi depuis ay siècle léegi mu mat siècle ak nangam benn ñaar ñetti référence fii ñaata nit a fi daj lu ne ci réew mi ñaata nit a fi jëf-jëf ju ne ci réew mi ay jëf yu kawe yoo xam ne booleew ñu ko tambour ak trompette li fi xew xam nañ ko fi la ñu fekk ñun propagande beeg ragalante ginnaaw beek coow lu rëy li loolu lépp fi la ñu fekk bu fekkoon ne ñenn ñi siiw ñor na leen dañuy def nañu ci des fii dara ñor fi bañ koy màcc réew moo xam ne mii li nga gëm rekk ay dox li leneen loo gëmul du moom ku ne di ràcc di jëme ci sa kaw sa ba sa kanam looloo fi nekk ci biir xol yi loolu la nit ñi di dundoo fii ñi fi nekk ci réew mi jëf fi jëf yu kawe bari na fi ñoo xam ne kenn du leen tudd daanaka te la ñu jëf ci seen domaine kenn laa ciy tudd ku sama xel dem Cheikh Ahmad Dem rahmatullah alayhi alquran tafsir boo xam ne bii bu fekkoon ne sax baaxul nga naan dama ciy seppi lii lii waaye xoolal fatiha ba falax ba naasi nit jël dundam sa consacré ko ci di xalaat di réfléchir di gëstu di dem di wuti di indi ba ba tafsir ci doomu sénégalais kooku ku ko ëpp ndam ku ko ëpp mérite ci réew mi ak ñeneen ñu mel noonu ci ay ci wetam soxna Mariama Niass yal na ko yàlla dolli leer sëñ Mahsin Diop ca Ndar Ahmed Sakhir Lo ñooñu ku leen ëpp mérite ci lislaam kenn rahmatullah alayhim ajmain rahmatullah alayhim ajmain bu dul ñooñu réew mi am na ñeneen ñoo xam ne ñii ci wàllu aada ak cosaan ak ci ndono luñ fi deful loolu mooy nation lu dul loolu buñ ko tuddee nation du nation waaye nga jàpp ay nit à servir leen parce que yaa leen ëpp xam-xam aslëf yaa leen gën a muus soi-disant wala wala wala wala nga complexé leen soppi leen ay nit yoo xam ne yi daanaka dootuñu ay nit ñu sukk ka raam ak daw te nga waroon yow bi nga jotee ci ñoom yëkkati leen ba seen darajey doomu aadama feeñ nga jàppe leen moins que rien maa la gën sama baay gënoon sa baay sama maam a gënoon sa maam loolu ngeen di dégg ci réew mi moom ngeen di gis même commentaire yi moom la ñuy wax ay waasoo ki askanak ay critères yoo xam ni critères yu amul solo yàlla moom bindul dara mu yam loolu ku ko weddi amu amu amoo amoog nitee waaye wuute yooyu dafa waroon a jur ñi ëppale wala ñi tane wala ñi nga xam ne ñoo féete kaw di jéem a ñot di ñi ci des ñu fekk si leen émancipé waaye nga leen di nuural jël say tànk di leen teg di leen nappaaje di leen noote jàppe leen mooy que yee mbokk yi bu leen nangoo topp ay nit ñoo xam ni mérité wu ñu tu leen topp wala ngeen di sonn ci koo xam ni mérité wu ko gis nga ku fi ne ñukk alquran ak sunna li yàlla santaane la wax suñu boroom waxoon rek moo lay dal wa man yaasu an zikri rahman nuqayyid lahu sheytaanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasudduunahum an ilsabili wa yaxsibuuna annahum muhtaduun xatta ida jaana qaala yaa layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayni fa bi'sa al-qarin ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون tey sadaqa llaahu al-aziim yàlla ne afa tusmiu afa tusmiu summa aw aw tahdi al-umya wa man kaana fi dalaalin mubiin yàlla nee na ku ma fi ne ñukk mën a la fi ñëll boole laa koo xam ne kii dana la doy mukk sëkk sëkk sëkk sëkk njuuma danaa la boole koo xam ni kii dana la doy sëkk njuuma ñu leen tegg ci yoonu yàlla wax te du ngeen jàpp du ngeen foog ne yéen réer ngeen fekk booba réer ngeen bu yàgg nee na yàlla nag maa ngi leen di xaar ba ñu ñëw taxaw fii ci sama kanam nee na ka sànk woon nan ko yàlla konte sama diggante ñoom ñaar ku ci nekk du ñàkk waaye ki wóor mooy ki ñu doon sànq moom mooy jëkk a moom yalla konte sama digganteeg yow ba ñu nekkee ci addina toll na penkook soowu yaa bon cib àndandoo yaa bon cib xarit yàlla ne ah tey nag moom dara mun leen fi amal njëriñ lu dul ànd bokk mbugal bokk mbugal mi yàlla ni laaj mu ne ko ndax mën ngaa fexe ba ki nga xam ni kii dafa tëx di dégg ndax mën ngaa fexe ba ki nga xam ni kii dafa silmaxa di gis tegu ci yoon mbokk yi réew mi suñum réew la ñoo bokk ndey bokk baay ñun ñëpp koo ci tuddoon fi mu ne nii am na ku bokk am na fu mu bokkeek yow nga yëg ko nga ñàkk koo yëg ñoo bokk diine ji bokk ndono gi kon bu ñuy xuloo ci loolu la ñu war a xuloo bu ñuy juboo ci loolu lañu ñu war a juboo waaye nañ ko rafetal nañu respectente mayante cër waaye ay saaga ay mënaas ay sànni xeer ay gune yoo xam ne juddooguñu ci xottu nen mani bu ma kenn wax naan ma jaru koog Euh, mel na xale déedéet man ku ñëw la nga tollool boo dee xale fukk ak juróom-ñetti fukk ale xale fukk ak juróom-ñetti nga fiy fekk boo magem téeméeri at magum téeméeri at nga fi fekk man nu ndik nit dikke noonu laay laa lay teeroo pourquoi may def le contraire mënta ne je ne suis pas habitué à cela yàlla bindeewu ma noonu ku ñëw la nga indi moom laay jël te nag malheureusement lu waaye di jaay man dafa fekk man ma lambale ko damaa jaaye jaay ba jeexal mu lamba am lu des kon yow la ngay indi am lu ma njëriñ noonu la ma yàlla bindee ko defee bokk yi ñu yemale kàddu yi fii ba beneen asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.